casser les talibés bi parce qu'il y avait un projet xale bi bu nekkee ci mbedd mi récupérer talibé def traçabilité monter pour xool kii kan mooy yaayam ba dëkk la joge ba ba xam fan la dëkk pour bu jàngee ba am kii ñu mën ko delloo mais amul benn naka luñ benn politique pour gérer les talibés aujourd'hui à un à en un man je pense que nous sommes en train de vivre les conséquences de cette de situation des enfants taalibe yi nga xam une large partie dañuy rejoindre dañuy nekk dans responsable dans ces situations là d'accord résumer ci chapitre bi nga xam ni jagleel nañ ko violence yi nga xam ni am na notamment décision bi euh, conseil de ministres jël jëm ci wàllu nawetaan yi muy suspendre ko euh, mën nañu jàpp ni muy yéen ñaar ñëpp da ngeen jàpp ni nekkul décision bu baax décision la boo xam ni du décision bu baax euh, Aliou sax dafa jàpp ni euh, Moutbane sax dafa jàpp ni bu ñu tëjee nawetaan yi kon war nañu mën a tëj politique bi. waaw parce que politique bi aussi gis nañu ci ay xeeti violence yoo xam ni. Mm-hmm. yu doy waar la. Mm-hmm. Euh, alors donc mën nañ jàpp ni chapitre bi noonu loolu lañ ci mën a tënk ñu ñëw ci beneen chapitre xaw a dugg un ci politique tey ñun ñëpp gisandu nañ ko Jeune Afrique wax lu jëm ci diggante président Abdoulaye Wade ak Macky Sall ndax loolu Aliou bett na la. que président Macky Sall am na taxawaay bu am solo bu mu taxaw ci jàppale eh, président Abdoulaye wadd ci këram baaxaat ak dimbali ko. non bettuma parce que xam naa ne euh, homme politique sénégalais euh, même ñi nga xam ne dañuy nekk quelque fois ci yenn rivalité yoo xam ne euh, boo ko seetloo ci kaw da naan ñaar ñii euh, du ñu jaaroo taal parfois ci suuf dañuy toog di waxtaan. Mm-hmm. ay jamono ndem si yàlla Amath Dansokho nekkoon na koo xam ne. Euh, bu tuddaan Ablaye wàdd bu ci waxee euh, li wolof di wax rek weñ bu ci dal dee. Mhm. pourtant ñëpp xamoon nañ ne seen diggante diggante bu ratax la woon. Mhm. ñaari nit ñu apprécié la woon. maintenant diggante Macky Sall ak Ablaye Wade euh, dafa am jaar-jaar mais jaar-jaar boobu am na lu ci ñagas dëgg la mais am na ci aussi lu ci rafet defe naa ne ñëpp xam nañ ne nit sax du defar nit mais Macky Sall bu jaarul woon ci loxo Ablaye wàdd lii mu am nii néew ma du ko am de parce que lépp mbiru yàlla la mais pour mu am ko dina jafe donc mu am retour d'ascenseur loolu lu normal la euh, Ablaye Wade ancien président la euh, donc mu am mu def kéem kattanam pour que mu nekk ci condition yu baax lu normal la Ablaye Wade jii na ko ko de toutes les façons et bu dee sénégalais la euh, te sénégalais la je crois je veux dire bu dee sénégalais la dans sa manière de mhm. penser mhm. dina xam ne euh, wala dina jàpp ne mhm. teraanga teraanga koy fay donc pour man loolu mën na bett ñeneen mën na bett tubaab wala kenn ku nekkul sénégalais koo xam ne day xool Sénégal ak bët bu dul bëtu sénégalais mais ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañ xam nañ ne loolu c'est tout à fait normal et que bon diggante ab Ablaye Wade ak euh, Macky Sall li ma ci xam mooy yàgg na lu ay nit di dox Euh, seen diggante di ci dox jàmm di ci wax ay jamono sax gis nañ première dàmm dem euh, Mariam Faye Sall dem seeti Ablaye wax et tout lépp pour pour feddali coloré parce que euh, coloré ci sunu valeur la seeti boobu nga wax aussi am na lu ci xew xam-xam nga. bien bien sûr lu mais du tere. Mhm. ak lu mënti xew xam nga tamit fois am na position de principe am na loo xam ne dañ koy wax juste parce que bëgg nga en tant que homme politique li ngay def mu lisible pour ñi nga xam ne ëllëg. ñoom pour ñi nga xam ne ñoom ñoo la jox déjà seen suffrage pour que nga nekk président de la république ñi nga xam ne ñoo la permettre tey ngay diriger le pays pour que yow li ngay def mu lisible mais li wër te wóor mooy man euh, euh, que Macky Sall jël dara defal ko Ablaye Wade bettu ma parce que li Ablaye Wade defal Macky Sall gëw ma ne Macky Sall mën na koo fay de. d'accord euh, Mourban ci xibaar boobu nga xam ni presque daanaka. Euh, journaux yi tey rawatina yi nekk en ligne moom lañu moom la ñu xëyee euh, mu nekk euh, taxawaay bu président Macky Sall taxaw ci wetu Abdoulaye Wade ci jàppale ko ban gis-gis nga am ci loolu. bon Pape man dama yàpp jàkk ni jàpp ni Macky daf ko yéex a def parce que Macky moom moo amal Abdoulaye Wade comme ni ko Aline waxee fi ñu jaar ak li ko defal yaakaar naa ni cër bu Macky Sall jox Abdou juuf bu joxul ab bu ni toll wuru koo jox bu bu ko yées bu yées mhm. te gis nañ ab Macky sàll ni mu tëye Abdou Diouf bu ko xelam yeddee ba mu ñëw nag am teraanga ju muy defal ab lu normal la ah mais aussi mais aussi bokkul ah xam nga ni Ablaye Wade ba tey moo jiite parti nekk dans l' opposition aussi. non diggante nit ah, ak loolu aussi c' est important bu dul politique diggante nit ak nit rek. ak nit ku la defal. waaw mais est loolu dina yomb ci ku taxaw ci opposition. aussi ak son discours bu dee nit bu dee eh, discours bi xam a ablaad waaw. élection le présidentielle dafa jot mu invité ma Versailles ma dem këram. Mhm. ñuy ñibbisi ci euh, jet privé. Mhm. je prends en témoin Atepa ma ngi fa woon maître Omar maître Sall y avait également Aydara Silla Ahmed Aydara ma ngi fa ñu toog mu wax ma mu ne ma moom bi mu quitté Sénégal dafa dem Maroc. pour mook makki dañoo waroon waxtaan téléphone pour waxtaan après bi mu kiiyee le roi Hassan II woo Macky Sall ne ko daf koy wax ak moom pour parce que Ablaye Wade pour ñu saafonte comme jigéen na fa defar quoi. Mhm. Macky d'accord jox ko rendez-vous. Mhm. le roi Hassan II ko makki n'a pas réagi le génn ci. Mhm. Alassane Ouattara woo na Macky Sall fois ci digganteem ak Ablaye Wade. mag yu dëgër. est-ce que déplacé wu ci sax ñëw. léegi est-ce que defu ci déplacement. ci biir avion bi ma toog Ablaye toog Atepa toog Ablaye ne ma muut yow mi nga xamante ni journaliste nga yow lan nga yaakaar ni man loolu laa def Macky lu ko war a naqari boobu ñu ngi jógee ñu ngi ñëw élection présidentielle di ñëw di def si campagne mhm. bi mu wàccee AIBD di nii ci biir avion munoo ma yow pour yow lan nga yaakaar ni moom laa def Macky lu ko war a naqari. ma ne ko mais xam naa dafa juum rek monsieur le président. mu ne ma jëlal sa téléphone nga enregistré ma téléphone bi laa yore mu ne ma enregistré ma. Abdoulaye dama di des choses yoo nga xamante ni après dama supprimer vidéo dama supprimer audio bi ndax benn comme njaay bi nga xamante ni mooy assistant am mu ne moo ne ma mu dimbali ma ngir yàlla nga supprimer audio bi. paa bi moo ne ma enregistré ko après nga bind ko ëllëg je l'ai wax na ma. mbëggeel gu mu am ci Macky ak cofeel gu mu am ci Macky Sall Pam Ngañ dem naa kër Ablaye de Fane ma toog ak madame Viviane Wade waxtaan boobu Karim mi ngi ci kaso bi madame Viviane Wade di wax ba si yàgg mu ne ma xaaral ma tëj fenêtre yi parce que doonte Karim mi ngi ci kaso bi lii may wax Macky Sall xam naa bu ko président déggoon dina ko naqari ndax daf ko bëgg ba gëmeew ko Karim mi ngi ci kaso bi. kon diggante Macky saal ak Ablaye Wade man dama jàpp ni Macky moo juum pouvoir jërul yenn yi Macky warut a jël nekk président de la République jël doomi Ablaye di ko tëj léegi jeex na ña ca nekkoon di xuloo di xeex di reyante ñu tëj leen kaso léegi ñu ngi nii moo tax sénégalais dañu war a yeewu ci homme politique yi benn sénégalais warul jaral benn homme benn sénégalais benn homme politique warul jaral benn sénégalais di sacrifier boppam. ñu lay tëj kaso wala ñu lay dóor parce que après ñoom ñooy tasaat teg seen i diil waxtaan juboo yow ma ca ñokkaan sa doom nga toog di jooy